am na solo dolli nga beneen de te bokk ci na nga def yaa ngi si jàmm kaay ni tuuti fii fii fii mooy suñu place voilà naka affaire yi. daal boo ah un siga ñëwul yow. dafa mooy loolu. dafa dal bonde man si gaa ñëwul waaw yow foo dëkk Grand Médine laa dëkk hmm. tey léegi man si gaa ñëwul loo waaw bu ñëwul moom amaana moom moom bu bari waaw ayca waaw bu ñëwoon amaana si lay baal ma teel la rek lay gën a neex mu koy ñaanal lu ko mu nekk loolu di incha allah ñaan yàlla may ma dab nga woo ña ngay woo ñu jàppale la. waaw dellu woo waa Grand Médine rek Grand Médine laa am Grand Médine mooy sama lépp. Mm-hmm. waaw di woo waa Grand Médine ñëpp surtout maa sama waa koñ. waaw bàyyi ma leen waa Prada. waa Bopp Coor. waaw waa Wute waa Palier 13. waaw comme yaa yëpp kafe ka. Uh-huh. amul kenn. Uh-huh. di woo ñëpp ñu ñëw jàppale ko ci combat di woo autorité yi waa Grand Médine.